taal ma sëriñ bi boo ko dañ lay jàpp asalaamaaleykum gars yi da ngeen fay numéro bi salaamaaleykum sañ-sañ dafa rafet waaye kenn xas yi daal sax ngay ñu mel ne rapport baax ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar di leen wax ni jàpp nañu ci bis bu baax ndax bu xew ne yéen la soxla et eh, moom la ñuy wax frère Tame Sène mu ngi noonu ci ginnaaw bu dee ba Dakar loolu di ko yaakaar naa day taw ñëpp ñëw nañu gis naa mën bu bëj ci ginnaaw yaakaar naa ni ah li ma duggee ma jaar mais dafa mel ni ak seen ñëw nañ te dafa mel ni avant ñëw ni taw ñëpp wuy ay na ne ngay wax ni koo fekk baax baax fekk la ko loo am bokk bokk moom man nag dama leen bindoo ci bisam yore ak ak kenn la ma borom ak toll ngay def lu ñu wax soo gis sama dugul wala ginnaaw wóor la xam nante yàlla ko ko mu taxawal ci ne loo ko kay nekk ak baax non non boobu maa ngi fi grand fi pare ku xool ba ci wàcc na ko après ñu lu bëri seen kii kaaw yàlla boole na ma ak moom nga am pour jot jaar am pour jot liggéey tey bu métti la ci man ndax temps yëpp maa ngi Dakar nekk tournage ci production laay jar mais dama ne mënuma mu bisu daaw foog man teew parce que ñun ñëpp ñoo bokk suñu sama nakk te di ñaan yàlla yàlla ñu bëri ko ba bis bii nekk ay bis yoo xamante ni at bu ñëw ngay mën a rëy te tuuti ñu di ko gënoon di gis waaw man naa sama gars yi sëñ Mbaye. et puis bu yàgg li nga ziar loo fekk Dakar yow foo dem am na loo fa fekkee kii mooy toog bu yàgg waaw mu ngi nii daanaka kullu fa kii bu production dafay kees normalement moom la mais ba taxawee moom la. kon day lay sax. luy léegi bu ñu commencé génne ay technique yoo xam ne dañ comprendre moo ko. yow bu ma la laataatee am na benn soxna nit ñi ah bu xam ne béykat la kenn foofu la lay tax macha allah dafa nekk daanaka boo xam ne dafa participer day sax am lu mu liggéey ci kees am lu mu ci def tey jii bëri na loo xam ne ñu bari dama doon leen Dakar di ko doxal à quatre-vingt-dix pour cent su ma ko waaj ñëw fii daal mooy boobu nga xam ni tamponné dañuy def soog soog booy mel ni mënu mel rek ba mënu ko mel xeer bu gis nga bëri ñu ko pax bu gis wax ci baaraam mais boobu léegi fekk amul kalima mooy jullit ba pare. booy bi fekk jullit bi ñu tege na ko booy bi fekk jullit bi fekk jullit bi mu mujjee fekk jullit ci dafa nekk ji. booy bi daa fekk beneen jullit bi rek jullit bi doon ko fi faat rek mooy bu jullit bi ko xamal moom ñu wéy. mais xam nga ci borom tuddee ak Dakar day mel ni mu war a wax ba dem benn cinq minutes ba commencé waaj mais booy bi. Yo, you can do it. Hello, mais daal boobu xam nga luy jiit quoi te kii dafa tànn kaw la dafa tànn kaw baax ah ah papa naa dégg est-ce que toll na comme jigéen ah ah papa naa dégg toll na comme fas ah ah papa naa dégg comme xel déedéet comme pël déedéet comme kii la dégg et yow xool nga woon ci attaque naa ko jigéen booy bi booy daa ngi man dina la wéy bii nekkul dara man dina suñu suba tuddee ba toog ci cinq minutes nga xam ne bii du dara bi moo am ne naan suñu waa commune bi bu ñuy yor rek na ko ñu di accompagner fat naa ba yow ndax sax war a xam rek ba yàq rek ci biir wala ay day dégg ndox lañ baax Hey, waxuma ne ko ci ci ma ne ko partenaire waa kii la ma ne ko bii la bii bii bii bopp ko gis la ko gis tàkk nañ ko rek tàkk nañ ko jërëjëf ma ma damay joxal benn ak sa doole doole sëriñ kay kii waa ji dafa am doom doom la dàq ci dëkk bi mooy chef de village moom daal gis nañu benn benn bu ko résister ndax taal bi am ak bët yi góor bu mu toogal nga taw pour lu ma doon ci mbéy mi góor bu gën a yàgg moom ci mbéy mi mu mayoo mais xam nga boo def am na effectivement ba léegi ne ñoom ñu koy ñu am lu quoi parce que mën naa yaakaar mu ci biir mën naa ko def temps boo xam ne benn bu def waaye su dee day ko am maa koy jot te pexe boobu dugg ah ak léegi dugal saa wu dugg fa def say njëriñ temps gars yi def seen dugub bu bu nekk moo mën a def say njëriñ temps ak kenn. boo ko jëlee béy rek gis benn bu ma ne boo xamante ni ma toog sax 15 centimètres ndax man daa lay bokk da ngay bokk da ngay bokk. daa ne ma ne dugal fooy doon ma ne coow commencé bañ ma ne ay duggal mu dugg.

am na lu ñuy def nee naa leen bés bu sëriñ Ka dafa ala taw bi sëriñ Ka ñuy gàttal ci kaw ñuy gàttal ci kaw dafa am loolu ñu doon. ñu doon doon doxal ko ñëpp daal di ko bu baax a baax a baax a baax sëriñ bi ñu doon doon ba léegi ñu doon doon wax nañ ci réew mi Ablaye Diouf waaw lii comme ni ko gisee ñoom ñëpp rek. Eh, yàlla yàlla doon si kuréel ak yéen waay en 2019 jox nañ ko ko doon mel ni maire ak xam nga Brahima. lii moom solo la ko gis. ndeysaan mais ay doomu des na ko def. ndeysaan. ñooñu ma ñooñu ne ay meilleurs animateurs. ndeysaan. ak ñi nga xamante ne ñooy entrepreneur yi. mais baax na. ndeysaan mais li am solo mooy liggéey rek. macha allah man liggéey daal dama ko wax. macha allah rek ci wàllu mbéy. macha allah gars yi tàcc nañu loolu bu baax a baax. macha allah yàlla la fi. amin amin macha allah amin Aïcha